أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله هذا سيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه ربا بلا خلوة أصحابه علنا حتى استقاموا فيا لله منهاه بهمة أو بحال هذا تربية نعم المربي مرب الحق يرداه yasqil na min kasil wusuli ila naxwil muraadi allazi qad kaana mawaahu naalal xilaafata qad shaat wirasatuhu ataahu xatmun min arrahmani wal jaahu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xàq te di leen ko baal di ñaan yàlla buur bi mu boole ñu jéggal ah di dellusiwaat rek ci seen émission bu mag bi di émission dars bi ngeen baaxoo di ko am fii ci télévision bu mag bi di Tacko TV la lumière du ñu ngi leen ci nuyu baax di leen ci ziyaara di leen ci baalu àqate di leen ko baal di ñaan yàlla buur bi mu boole nu jéggal ñun ñëpp bu ko defee di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ci plateforme yi moo xam TikTok bi la wala YouTube bi la wala ñi nga xam ne sax ñi ngi ñuy topp ci seen Telegram bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen ci gërëm bu baax a baax euh, di leen wax ne rek noonu la ngeen continuer rek di abonné ci seen YouTube bi nga xam ne mooy Tacko TV mi nga xam ni moo leen di may seen émission bu mag bii di émission dars bi bu ko defee ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm Amaro moom Serigne Saliou sama influenceur mag boobu nga xam ne moom mooy réaliser émission bi neenaa la Amaro mooy ki nga xam ne lu mu réaliser wu rek leerul kon Amaro mu Serigne Saliou ñu ngi koy jox nuyam di ko jox waaye bu baax a baax bu ko defee dañuy tey maf ñàngu rek li nga xam ne mooy dars bi fas yéene ànd ak suñu maam ju baax ji ñuy wax Serigne di Touré euh, ci xasidaam goo nga xam ni xëy na commencé woon nañ ko fi sax waaye nag dafa xëy na amoon gàllankoor ba tax àggul woon Euh, tey nag ñu ñëw fas yéene koo àggale fas yéene firi xasida googu nga xam ni xasida ak maam Hadi Touré la euh, mu bàkk ko suñu góor gu màgg googu jàmbaari lislaam ji Seex Sidil Xaaji Malik euh, xasida la goo nga xam liñ am ci l'histoire am mooy biñ waxee ni maam Hadi Touré bind na xasida gi foofa ca fas Touré da koo jox alxaaji Abdul Aziz si Dabaax moom moo ko indil Seex Sidil Xaaji Malik wax nañ ni sax alxaaji Abdul Aziz Dabaax fas ture la dawee ba Tiwaawoon ngir indi xasida gi wax nañ ni bi muy ñëw dafa fekk Seyd El Hadji malik mu ngi mi ngi jàpp mu taxaw ba góor gi jàpp ba pare siggi ne ko bismillah lu doon aajo ji mu ni ko sama baay haadi moo ma yónni mu ni ko bismillah ci la alaaji abdou départ ci abal habibi salil al qutbi usmana wa xiida asrika tayidan wa irfana bayit bu daanu rek alaaji malik ni eskay bayit bu daanu alaaji malik ni eskay ba xasida gi daanu kon nga xam ne xasida la gu alaaji malik gërëm xasida la gu ñor Alaaji Malick kon xasida la goo xam tey ñu ngi koy firi di doxantu diggante Fass Touré ak Tiwaawan suñu maam Xaadi Touré dafa ni abal xabibi salilal qutbi usmaana waxiida asrika tëyidan wa irfaana maam Xaadi daf ni abal xabibi ey yow bàyyi muhammadunil xabib si salilal qutbi yow mi nga xam ni yaay doomu xutb ba ban xutb moo tax ngay wax mu ni ko usmaana maam usmaana ma tax di wax yow mi nga xam ne yaay bàyyi Muhammadunil Xadib tey doom maam Ousmane si yow laay wax waxiida asrika yow mi nga xam ni wéetoo nga sa jamono te yii dan ci dëgëral wa irfaanan ak ci ràññee yow mi nga xam ne unique nga woon ci sa jamono kenn nga woon ci sa jamono te loolu da nga am ci dëgëral guñ la dëgëral tey da ko am ci ràññee guñ la ràññee ba ba ba ba ràng la garaat yooyu kenn nga woon ci sa jamono nekkul loo nga xam ne dañu tëb tëb rek wax ko waaye dafa am fuñ sukkandiku am ràññee guñ ràññee ni yow Alaaji Malik kenn nga woon ci sa jamono moo tax mu ne ko abal xabibi e eh yow bàyyi muhammadunil xabib sa lii liilal xutbi yow mi nga xam ne yaay doomu xutbu ba ban xutboo la tax di wax mu ni usmaana na doomu maam usmaan ji yow mi nga xam ne yaay bàyyi muhammadunil xabib tey doomi maam Ousmane si yow laay waxal yow mi nga xam ne waxiida asrika ku wéetoo woon sa jamono ga te yii dan ci dëgëral wa irfaanan ak ci ràññe yow moomu laa ni ahsanta fi diini wa dunya muamalatan kon fallaahu yujzika bil ihsaani ihsaana sëñ Xaadi Touré mu ni Alaaji malik li ma la bëgg wax mooy dama ni ahsanta rafetal nga yow Alaaji Malick fi diine ci diine wa dunia ak àdduna muamalatan ci jëflante yow Alaaji malik ni nga jëflanteeg diine rafet na waaye ni nga jëflantee ak àdduna yi rafet na kon fallaahu yàlla yujzika yàlla na la fay bil ixsaani ci rafetal gi nga rafetal ci diine bil ixsaani ci rafetal gi nga rafetal ci àdduna yàlla na la ci yàlla fay ixsaanan ak rafetal ixsaanan ak njekk ndax àdduna ak alaaxira euh, ñoom ñaar ñooy ànd rek mënuñoo tàqalikoo yow nag yaay ki nga xam ne fexe nga ba seexale leen ñoom ñaar ndax nag waamal li dunyaaka ka annaka su abadan waaye waamal li axiratika ka annaka tamutu gadan kon ñoom ñaar ñooy ànd waaye yow mi nga xam ne yaa fexe ba seexale leen te sëll demeewul ak ak neen giir neenul yow mi nga xam ne yaa def loolu yaay ki fexe ba njaboot xiiful waaye sël sëll demeewul tamit li nga xam ne mooy baatub neen nee na yow mi liggéey liggéey bu réy boobu kon am nga am nga jaaraama moo tax mu ne ko ahsanta rafetal nga fi diine ci diine wa dunya ak àdduna loo fa rafetal mu ni muamalatan ci jëflante kon fallaahu yàlla yu jizika yàlla na la fay bil ixsaani ci rafetal gi nga rafetal ci diine ak àdduna ixsaanan ak rafetal ndax nasaxta ummata xayril xalqi muxtamilan asqaalaha rafian li diine arkaana mam haadi mu ni allaaji malik nasaxta laaye biire nga ummata xayril xalqi xeetu ki gën ci mbindee fi te mooy xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam laaye biir nga leen muxtamilan mbir moom ngay aji yanu asqaalaha diis diisu umma bi raafi an mbir moom ngay aji yëkkati li diine ñeel diine arkaana ay ponkam nee na yaay ki fexe ba diine li waroon a diis ci moom lépp ci umma bi nga gàddu ndax wax naa la ko ummatu sayyiduna Muhammad dafa bokk ci li waroon a gën a diis ci ñoom mooy xam jéem a dem fexe gëstu ji xam fexe nun koy amee ba mën a gàddu diine ji mën a gàddu tarixatu tiijaan ci mbooleem goxi àdduna yi loolu waroon naa nekk yitte ci umma bi yow Alaaji Maalik nga ngar dajjoo ko ni loolu man maa koy assuré ku bëggati xam-xam boo wàccee Tiwaawan loolu sotti yaa xaayisal baxri gaa yi ne ah nga ne lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ala min al jalami yaa xaayisal baxri allah ji malik ne e yow mi nga xam ne yaay xuus xuus géej yow mi bëgg a xuus géej lil asdaafi ngir ay sadaf rek indi nekk na fa man allah ji malik asdaafun ay téere asdaafun ay téere yoo xam ne biha am na ca durratun bu ñuy wax xilaasu zahab boo xam ne ala moo gën a kawe min al ci mboolem kutubu siira yi yow mi nga xam ne danga ngaa laxas te bëgg a xami maam yi yonent bi rek Alaaji Maalik nee na jaratu ko wàccal Tiwaawoon boo wàccee Tiwaawoon la la nga waroon demee Màkk wala nga war koo demee Madina wala nga war koo demee Keer wala nga dem ko war koo demee ci yeneen dëkki arab pour xami fa maam yi yonent bi nee na boo nee cëpp Tiwaawoon sa aajo faju kon muxtamilan asqalaha rafian li diini arkaana loolu la ko maam Hadi bëgg garantir moo tax mu ne ko nasaxta laaye biire nga ummata xayril xalqi xeetu ki ci mbindee fi muxtamilan mbir moom ngay aju yanu asqalaha dis disu umma bi rafian mbir moom ngay aji yëkkati li diine ñeel diine arkaanan ay ponkam nee na ponki diine it yaa ko yëkkatiwaat ba ñëpp seen ko xam ne ndagate ah diine mi ngi existe waaye am na ay temps diine lu lu deewoon la waaw lillaahi darruka min cheykhin yadullu ala mawlaahu qawlan wa filan yabna usmaana mam hadi Touré mu ne lillaahi maa ngi yéem darruka sag baax daru lim doon firi mooy kasratul laban waaye nag tey li muy firi mooy kasratul xayri mooy yiw bu bari mu ne ko Allaaji Malik maa ngi yéem sëriñ bu bari aw yiw lillaahi maa ngi yéem darru ko sag mbaax min cheykhin ci sëriñ boo xam ne yaddul day tegtale ala mawlaahu ci boromam mu di ko def xawlan ci wax wa fi'lan ak jëf yëpp na Ousmane yow doom maam Ousmane maa ngi yéem sëriñ boo xam ne day tegtale yàlla te di ko defee ci ñaar mooy da koy defee ci wax waaye da koy defee ci jëf sëriñ boo xam ne bu waxee waxam nga dégg ci yàlla sëriñ boo xam ne bu jëfee jëfam nga gis ci yàlla nee na maa ngi yéem sëriñ bu mel noonu te yaakaaroon naa ne man Khady Touré sëriñ bu mel noonu amatul waaw moo tax mu yéem ko ndax yaakaaroon nañ ku mel noonu amatul koo xam ne bu waxee nga dégg ci waxam yàlla bu jëfee nga seen ci biir jëfam yi yàlla nee na loolu yaakaaroon naan sëriñ bu mel noonu amul lillaahi maa ngi yëm darru ko sax mbaax min shaykhin ci sëriñ boo xam ne yaddul day tegtale ala mawlaahu ci boromam mu di ko def xawlan ci wax wa feelan ak jëf yàpp na Ousmane yow ki nga xam ne yaay doom maam Ousmane ji mam hadi mu ni alaaji bi ma la xoolee nga amee critères yi melokaanoo melokaan yi nag ci lay door a wax ni asnatu zahri ilayka dëhra mu'tamidan te wala ubali bi man awlaaka udwaana bi loolu amee nag asnatu ci lay door a wax ni wéer naa zahri sama ginnaaw ko jëme ko ci yow Maodo ad dahra diiru jamono tamit mu'tamidan mbir moom may aji sukkandiku ci yow te wala ubaali du ma faale bi man ci ka nga xam ne awlaaka méngale na la odwaana ak noone ku noonoo te Alaaji Malik sama yónneeku ci man Alaaji Malik doy na ma te jël naa sama ginnaaw gi wéer ko ci ginnaawam ndax doomam Sëriñ Babacar Si kat moo ne woon kuy wéeru da ngay seeti ginnaaw borom daaya Alaaji Malik ay dayo dayoo ngi yem ci Alaaji Malik moo tax maam Haadi ni jël naa sama ginnaaw gi wéeru ko ci ginnaaw xam naa ku ko wéer ginnaawam doo daanu waaw as nattu wéer naa zahri sama ginnaaw ilay ko jëme ko ci yow Maodo ad dahra ma def ko diiru jamono amatul ku ma mën a xoy dara ba tax ma wéeri sama ginnaaw gi ci Maodo dem di ko wéeri ci keneen moo tamit daan mbir moom may aji ci Maodo wala ubaali du ma faale man ci kan aw laa ko méngale leen udwaane ak nooñe maam Haadi mu ne Alaaji Malik damay wéer sama ginnaaw gi ci sa ginnaaw waaye du tax ma nekk sab gàngal mooy nekk sab diisal boo xam ne amuluma la benn njariñ ku lay song sama yoon nekku ci ku lay xas sama yoon nekku ci déedéet man su ma wéeree sama ginnaaw ci sa ginnaaw ci tamit damay taxaw nekk sa défendre damay nekk sa défenseur boo nga xam ne lu nar a sa man maay taxaw di wax ci wax ci loolu moo tax mu ni ko man yàqul fii ka xawla suu i muntaqidan aslaytuhu bi xawaafi zammi niiraana mam hadi mu ni allaaji malik wa man yàqul ku wax na fii ka ci yow xawla suu in wax ji ñaaw muntaqidan muy aji dingat la képp ko yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëme ko ci yow te dara taxul mu yëkkati kàddu yu ñaaw yooyu jëme ko ci yaw lu dul diingat la ak contrôle ku ko def aslaytuhu dinaa ko jaaruloo bi xawaafi zammi ci ay xaafiyey ngaññi niiraana yoo xam ne ñoo raw safara dinaa sat sama xalima tàllal këyit bind ci moom ay xaafiya mooy ay way yoo xam ne bu àggee ci moom mooy raw safara waaw ku dof dof lu ba laal la yow Alaaji te laal gi tegu ko ci lenn lu dul contre la ak bañ la dinaa daas sama xalima ba mu ñëw ma tàllal këyit wax ci moom ay baytu yoo xam ne bu àggee ci moom mu raw safara wa man yaqul ku wax na fii ka ci yow Maodo la suu in wax ji ñaaw muntaqidan muy aji diingat la moom hadi nee na kooku aslaytuhoo dinaa ko jaaruloo bi xawaafi zammi ci ay xaafiyey ŋaññ yoo xam ne niiraa na ñooy raw safara waaw sëriñ boo koy tontu da nga koy tontul xam-xam moom hadi mu ni kon nag jazaka an ummatil muxtaari xaaliquna yowmal mujazaati xayran yëpp na usmaana moom hadi mu ni kon nag jazaka yàlla na fay la kan moo lay fay mu ni xaaliquna yàlla mi aji bind suñu yal na la fay an ummatil muxtaari walif mboolem xeetu ku ñu tànn yal na yàlla wuutu mboolem xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw fa waroon a taxaw di ñaanal ak di la wattoog di gaarante yal na fa yàlla taxaw yal na yàlla wuutu ñëpp taxaw fa ñu waroon taxaw di la di la gaarante yow yal yàlla taxaw fañ waroon a taxaw nekk sa gaarante jazaaka yàlla na fay la xaaliquna aji bind suñu an ummatil muxtaari walif mboolem xeetu ku ñu tànn ñëpp yal na leen yàlla wuutu fayal ñu la kañ lay doon mu ni yowmal mujaazaati ci bisu fayante ba bis ba nga xam ne lu waaye indi lañ lay fay bis booba yàlla na yàlla wuutu ñu fayal ñu la xayran aw yiw yépp na Ousmane yow doomu maam Ousmane ji li nga ñu defal bari na ba mënuñu koo fay waaye yàlla nañ yàlla wuutu ci yow fayal ñu la aw yiw waaw ndax an qastahum min surufi dëhri waaqiyahum min al jawa wal bala yépp na Ousmane ndax an qastahum xettali nga leen ñoom doomi jamono min fi dëhri ci soppeeku jamono couleuram yu bari ak melokaanam yu bari bu tayee mu nekk ju taaru bu teyee mu nekk kat kat romb la moom moom jamono nee na jamono couleuram yooyu muy xoyee ndaw ñi di leen ñoddi di leen ñoddi yow fexe nga ba dimbali ci xale yi jamono yee leen xàmmee leen li réalité ci jamono ak li du réalité lépp yaa leen ko niital ba mu leer an qastahum xettali nga leen min surufi dahri ci soppeeku jamono waaqiyahum ngay aji fegal leen minal jawaa ci njàqaree jamono wal balaaya ak musibay jamono yépp na Ousmane yow doomi maam Ousmane bi fexe nga ba njàqaree jamono ak musibay jamono nga niital ko xale yi bañ xàmmee ko mën koo jéggi dem seen yoon mam hadi mu ni allaaji malik mu ni ko am ah, mu ni ko nasarta man hammuhu dunya wa zinatuha kazaka taaliba diinin yab na usmaana mu ni ko nasarta dimbali nga yow mawlu man waa ja nga xam ne hammuhu yitteem yëpp dunya àdduna rek la woon ki nga xam ne yaakaaroon na ne àdduna mooy muntahal amali mooy daytalu kayu mibal ku mibal ba am àdduna rek yaakaar na ni am bi foofu la waroon a yem nee na fexe nga ba dimbali kooku wa zinatuha ak taaru àdduna kazaaka naka noonu ci ndimbali di taaliba diineen aji sàkku diine dimbali nga ko yàpp na usmaan yow doom maam Ousmane yaay fexe ba ki nga xam ni àdduna rek la bëggoon nga fexe ba xamal ko ni àdduna du muntaxal maam du muntaxal amal waaw àdduna am na leneen lu nekk ci ginnaawam lu ko gën kii wër diine ya te doon ko wëree ak ndof ak fugg ak ëppal ja nga xamal ko ni diine kenn du ko wëree noonu diine danga nga cay yem fa la ci yàlla yem loo fexe ba jox ko diine bi nga xam ni mooy diine ju sell ci nga xam ni bu ko jëfandikoo am yàlla ñi ñëpp yàlla leen dimbali waaw moo ndax mu ni ko nasar te dimbali nga man ka nga xam ni xëmmuhoo yitteem yépp duniyaa àdduna la woon wa zinatuha ak taaru àdduna kazaaka naka noonu ci ndimbali di taaliba diinin aji sàkku ji diine yi dimbali nga ko yàpp na Ousmane yow doomu maam Ousmane ci ndax yow sëriñ nga woon boo nga xam ne da ngaa man fii man fële waaw sëriñ nga woon boo nga xam ne da ngaa man poos man xam man poos man téere yi waaw moo tax mu ni ko bazalta maalan wa ilman musriyan li faqirin hadiyan li jahoolin yàpp na Ousmane ndax yow Maodo bazalta yulli nga maalan alal wa ilman ak xam-xam musriyan ngay aji woomal looli faqiirin ñeel aji ñàkk mu dellu ca bazalta maalan haadiyan ngay aji gindi li jahoolin ñeel aji réer mu dellu ca bazalta ilman ja yàpp na Ousmane yow doom maam Ousmane ji yaay ki toogee woon ñaari côté ku ñëw te alal rek yëkkati ko nga jox ko ba buy dem day gëlëm ku ñëw ba xam-xam te xam-xam indi rek ko boo ko joxee bu demee ni kii fu mu jàngee waaw yow ki toogee woon ñaari ñaari gàngu naa yooyu yaay ci toogoon toogee siisu xam-xam ak kiisu am-am ku alal indi boo ko joxee buy dem day gëlëm ku xam-xam indi bu la boo ko jàngalee buy demee danaan kii fu mu jàngee waaw basalta yulli nga maalan alal wa ilman ak xam-xam musri yan ngay aji woomal lool lil faqiiri li faqiirin ñeel aji ñàkk haadiyan ngay aji gindi li jaxoolin ñeel aji réer yàpp na Ousmane yow doomu maam Ousmane ci maam haadi mu ni Alaaji Malik fa kam fa kam wahabta mi'aatin kam wahabta ulufan kam wahabta karratin yàpp na Ousmane maam Alaaji Malik sëñ haadi Ture nee na fa kam wahabta bari na boo mayee mi'aatin ay téeméer yu bari nga yëkkat di ko may nit kam waxabta bari na boo mayee ulufan ay junni kam waxabta bari na boo mayee karraatin ay yoon yooni yoon nga yëkkati alal di ko jox nit yàpp na Ousmane yow doomu maam Ousmane ni yaa daan joxe ba say mbokk naan la xanaa bëggoo dara <laughs> la ilaha illallah